Oumar Diop euh, directeur général du Millennium Challenge Account au Sénégal. waaw tey euh, bis bi dafa nekk bis boo xam ne dafa am solo lool lool lool lool ci liggéey bii ñuy def nga xam ne gouvernement du Sénégal ak gouvernement américain ñoo ñu ko dénk. parce que euh, MCA Sénégal mi nga xam ni moom mooy entité bi nga xam ni moom mooy war a programme bi fi mu nekk mu ngi def liggéey bu mucc ayib toll nañ daanaka ñaari at. Euh, ak genn wàll ci liggéey bi euh, maa ngi fàttali nag di liggéey bi nag moom ñetti projet yoo xam ne yu am solo la euh, projet bu njëkk bi mooy projet bi nga xam ni dafa war a moderniser maanaam lépp loo xam ni dafa nekk maanaam courant bi ci Sénégal nu ñu fexe ba jëlee courant bi fii di ko yóbbu fii di ko yóbbu feneen bi ci topp mooy nu ñu fexe ba nga xam ne dëkk yi nga xam ni nekk nañu ci àll bi nañuy fexe ba xam dëkk yooyu yëpp danañ mën a am courant muy accès à l' beneen bi si topp nag moo bi gën a am solo euh, ba xaalis bi mu laaj nag bëriwul mais dafa am solo parce que ay réforme la euh, xam nga ni depuis euh, deux mille vingt et ba léegi ñu ngi liggéey si réforme secteur électricité bi te réforme boobu dafa war a jaar ci ministère bi nga xam ne moo yore pétrole bi ak courant bi war na jaar également ci ki ñuy wax mooy régulateur bi nga xam ne mooy tënk maanaam organisation yi nekk yëpp ci secteur courant bi ci Sénégal ak bi ci bujj nag wàllu Sénélec la na lay fexe ba xam ni Sénélec dina gën a mën a am doole ba nga xam ni courant bi également ah su dana ak foo xam ni dana mën a wàññeeku léegi nag liggéey boobu yëpp ñuy def nga xam ne dafa am solo mënuñu ko def rek dem dañ koy def ba pare fexe ba nga xam ne nag képp koo xam ni nekk nga Sénégal muy gouvernement bi muy secteur privé bi muy euh, association secteur privé ñëpp daal maanaam xam liggéey bi nan lañ ko defee ba beneen yoon su suñu songee liggéey bu mel noonu mu mu yombal ko loolu nag moo tax tey jii ñu signé convention bi nga xam dafa ne convention bu am solo ñun ak université euh, Iba Der bu Thiès ñu ngi liggéey waaye nag université bi moom convention bi nu signé moom war a jàpp liggéey boobu ah ak ay étudiants am dafay jàng lu njut ko xool ko tàgg ko ba pare xool nuñ koy fexe ba tas ko biir Sénégal ba xam ni képp kuy liggéey maintenant si projet bu mel nii danga mën a vraiment lu ñuy wax capitalisation voilà donc loolu nag moo moo taxoon tey jii ñu signé convention bi kontaan nañ ci lool ak suñu euh, euh, suñu mappandoo mooy euh, recteur université bi vraiment yombal nañu liggéey bi équipe bi yombal nañu liggéey bi moo tax daal dañuy profité ba paax di remercier université bi remercier également recteur bi parce que vraiment doole nañ MCA te gis nañu fi nekk convention bi ak nañ ko signé incha allah moom balaa compact bi jeex lépp lépp dina yemb. MCA bi moom li mu siy mooy maanaam. fexe ba nga xam ne li ñuy liggéey ñi man ko tasaare li nga xam ni moo la ñuy wax meilleure pratique li nga xam ne maanaam noonu la ñu war a tàggate projet noonu la ñu war a gérer projet ak programme si la xam ne dafa wàllu passation de marché loo xam ne dafa nekk wàllu finance loo xam ne dafa nekk wàllu technique loo xam ne dafa nekk wàllu gouvernance loo xam ne dafa nekk wàllu transparence yooyu yëpp noonu compact bi def siy liggéey te ñun nag bëgguñu ko liggéey rek téye ko pour ñun moo tax ñun li ñu bëgg mooy tey université bi jàppale ñu ba loolu yëpp mën a tas si réew mi université bi nag moom li mu siy gagné mooy moom timit xam nga université day tàggat ay étudiants université bi dina mën a matière boobu ñuy liggéey jël ko xool ko tàggat étudiants yi ak ay professeur am ba nga xam ni étudiants yi nga xam ne ñooy génn ci université bi dana leen dooleel ba xam ne ëllëg si biir suñu génnee dana leen équipé ba nga xam ni projet bu ñu dugg rek danañ ko mën a liggéey si meilleure pratique yi danañ si profiter rek équiper université bi également am na ay équipement yu bëri yoo xam ni si cadre programme bi war nañ ko jox université bi loo xam day nekk ay ordinateur loo xam day nekk ay équipement yoo xam ne dana leen si jàppale également donc loolu moo tax daal vraiment partenariat bi convention bi ñu am ak université yi moo xam ni loo xam dina am solo lool si MCA si programme bi am solo lool si université bi am solo lool tamit si population Sénégal. waaw tey dañoo dañoo daje ak suñuy euh, partenaire u MCA Sénégal ñoo xamante ni euh, euh, peuple américain dafa may peuple Sénégal euh, benn don bu am solo bu ëpp 300 milliards biñ ko jàngatee ñu gis ni Sénégal lu bari li koy tere avancé mbirum énergie ci la bokk donc ñu jël xaalis boobu jagleel ko mbirum transporter électricité mbirum fexe ba ñi ne ci Sénégal foo mën a ne nga mën a jot ci électricité jagleel ko aussi mbirum organiser secteur électricité bi am ci nuñ ko mën a defee ti ñu mu gëne loolu buñ koy def nag euh, day laaj euh, étape boo toll jafe-jafe boo fa fekk nga mën koo jéggi ñun ci suñu rôle ci ci programme boobu mooy lépp lu ñu am ci expérience lépp lu ñu am ci xam-xam lépp lu ñu jàngatee ci mbir bi ñuy def mise en œuvre projet bi ñu mun koo jël ñun jàngat ko xayma ko ci ay euh, références scientifiques muy soit partie technique bi wala partie soit suivi évaluation bi pour mën ko capitaliser capitaliser maanaam mooy ñu denc ko bu bés bu ñu ko soxlaatee ñu mën koo jëfandikoo. mën nañ ko jëfandikoo nag ci biir Sénégal comme mën nañ ko jëfandikoo ci yeneen réew yi nga xamante ni ñoom ak Sénégal ñoo xaw a méngoo ni ñu ni ñu xaw a mel. loolu moo ñu indi tey jii ak suñuy partenaire MCA ñu leen di sant tamit di leen gërëm lool ci wóolu ak euh, bi ñu bi ñu def ci université Iba Der université boo xamante ni ñëpp xam nañu université à vocation professionnelle la ñun ñu bari ci ñu ñuy former ay formation métier la fi ñu toll nii am nañu benn UFR boo xamante ni science économique et sociale lay def moo war a liggéey ci mbirum suivi évaluation am na ñetti département yoo xamante ni li ñuy def yëpp dafa méngoo ak li euh, MCA Sénégal di def muy département génie électrique muy département génie informatique ak muy euh, euh, département de physique donc ñooñu ñëpp bu ñu boolee seeni seeni doole dinañ mën a jàngat. xayma xam-xam ak expérience bi ñu am ci projet bi mën koo bind tënk ko pour Sénégal mën cee gën a mën a jëfandikoo ci at yi di ñëw. waaw xam nga mbirum jàngale dafa am ay niveau bu fekkente ni euh, xam-xam de base bi la loolu àdduna bi yëpp ñoo ci bokk yam mais ñi nga xamante ni dañuy génn di dem ci milieu du travail dafa am lu ndaw lu ñu war a mën a euh, am lu ñeneen ñi amul. ñu am chance nag am projet boo xamante ni day def plus de trois 300 milliards loolu du bés bu ne nga koy am loo concentré wu ci énergie kese donc xam-xam ba fay jóge expérience ba fay jóge nga jox ko ñi nga xamante ni dañuy waaj a dem dugg ci monde du travail loolu dafa nekk loo xamante ni occasion la boo xamante ni du gaaw a amat donc loolu même buñ ko xamee ba euh, tënk ko dina jëriñ ñi fi ne ren dina fi jëriñ aussi ñi fi ne ay at yu baree baree bari loolu mooy mbirum jàngale ak recherche ak xam-xam